wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rekk lañu ko def sëriñ Abdul Ahad Mbakke nee na mbalaanum sutura ku ko sunu boroom sàng lu mu tëradi tëradi ay tànkam du feeñ